tey nag ñu seet woon pépinière say mbuur di bàjjale ko ci Touba di liggéey liggéey bu am solo nag nekk présidente bàjjale gox yi ñëw social ci Touba moom nag mu ngi nekk fii ci Ndal moom nag muy yëngu ci social bu baax a baax boo xam ne ñu jigéen bu ci jigéen waaye war a delluwaat dafay loolu nag di yëngu ci social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 어, 뭐, 뭐, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جلدي نونغي لين دي نيو تي سرين سيرين عبد الفتاح مي توك دي لين دوكيل دي لين بالحق تا دي بالحق يالنا يالا بوري di bokk di sant yàlla bu baax ci may gim nu mayoon ñu fekke weeru koor lañ ca jot a jëf mu néew mu bari yàlla na ko suñu boroom nangu mu mel ne weeru lëmm jóge na ci suñu dund te du dellu waat ñu war caa jàng ne lu nuyoo rek tàggoona ay fan ci gannaaw <coughs> jàmmante yépp daana ca bokk ndax yéen a ngi waajal koor gi tey jii mi ngi nii di dem yàlla na nu fi bàyyi ci jàmm te fekkaat nu fi ci jàmm kenn bañ koo wuute sëriñ bi nag jolli duñu dénk ñu gën a fab sunu tànk teg ko ci taqwallah ak sukkandiku ci moom taqwallah nag gudd gàtt mooy jëfe ndigal yi bàyyi tere suñu boroom ne ku jëfe ndigal yi bàyyi tare yi lu mu dugg lu mu rëy rëy buntu ba ko cay génn suñu borom moo ko koy sàkkal ca mbir ma wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuquhu min xaytu la yaxtasib waaye nee na ku teg tànkamit ci taqwallah lu jafe ñépp mën naa yomb ci moom lool wa man yattaqi llaha yaj'al lahu min amrihi yusra waaye nee na ku teg tànkamit ci taqwallah ëllëgé rëcc rëcc yam xamoon ak yam xamut yépp suñu borom mën na ko ne mën na koo far ni ni aw rëdd dal ci yàlla boole wa man yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yudim lahu ajra sëriñ bi nag wax ne ci fan yu néew ci gannaaw ku ko seetlu da nga gis ñetti aayay alquran yu suñu borom doon wax ñun ñu teg suñu loxo teg suñuy gët suñu borom waxoon nañ ci alquran ne yuqallibu llahu layla wa nahara inna fi dalika la ibratan li ulil absar suñu boroom wuutal gi muy wuutal guddi indi bëccëg wuutal bëccëg indi guddi nee na ku ci jàngewu dara am xelam gàtt na njàngum kese ca nag waaye newoon na it dana leen wan dana nu wan ay kaawtéefam tàmbalee ko fii nu gën a jege ba faa ba ñu xam ne moom yàlla daal mooy dëgg sa nurihimu ayatina fi laafaaqi wa fi anfusihim xata yatabayana lahum annahu alxaq bi may ba ca topp moom lay mujje bokk yi fan yii nga xam ne moo jàll yaar ba yetti weer suñu boroom wëlbati na fi jamono wëlbati goo xam ne ku yebu tàmbalee ci moom yam ci moom rek te su ma waxee je suñu yam yam ci moom mooy tàmbale ci sëriñ bi yam ci sëriñ bi ndax suñu sëriñ bi ni ko sëriñ di fi nekkee ba buñ ko mujjee gis yépp ci boromam la nekk kon ku topp ci moom ne ko di xool yaa ci topp suñu borom fan ñu weesu nag yàlla wan ko ñu gis ko bokk li fi a ci ab xew-xew ci mooy ñi jógoon ay lawax ne dañuy sàkk ku leen dink suufu Sénégal si ak li nekk Sénégal lépp loola suñu boroom wan nañu ci ne ku yabu tàmbalee ci moom yam ci moom ba ñuy tànn tànn nag boo ko gisee dana am ñu jàll am ñu jàllu te it tànn ci wenn xeet lañ koy def buñ ko jëlé misal ci luñu gëna gën ña suñu borom tan rek ñoo jall bokk yi nit dana jël aw jiwoom def ko ci ak leket leket gu ram def yami def ci biir jox ko as ngone mu yanu ne ko bul wax lu lepp gone ko dañ ko tan tan jiwu wa waaye buñ démé ba kay toba toba ba ñuy cof di sànni dana am fépp yoo xam ne du dem ca po tooba ma tànnuñu leen waaye bu demee bay saxet dana am yuy sax am yu dul sax ya saxul dañ leen a tànnul suñu demee ba ñor ba yëpp ne sañ sa gubb it dana am yoo xam ne duñ ko jot a góob ay ficca ñëw for ko yóbba yóbbu tànnuñu leen ñu war a bokk ca gubb waaye buñ ko góobee ba yóbbu ko ca dàggaje yi bu ñuy bojj am na yoo xam ne fa ñu leen fa ñu koy banqué di ko dugal ca tuq sax wala gënn ga ca la ñuy ruuse wadd kontaan nu ñu leen ngir ñu war a dugg ca gën ga waaye bu ñu jógee ca gënn ga yi ba war a soq bala ñu ko yóbbu ci kër ga noona dana am yu wadd bu ñuy soq noona bu ñuy foofu noona bu ñuy wal noona bu ñuy mooñ ba àgg ci siim bu ñuy dem bay siim it gone dana tibb du mën a gën a yóbbu ci gémmiñam nam ko waree am yu wadd waddaat kontaan nu ñu leen ci loolu nag danañ ci gis lu kii maanaam li yàlla ne dana wane ci ay kaafu téefam ci gox yi tàmbale ko ci nun la wax yooyee am na ca koo xam ne li feeg néewagutoon ne danaa bëgg dama bëgg bokk ci ñiy tànn jox leen réew mi du faatu mukk am na ci koo xam ne fekkewu ko am na ci koo xam ne it ñay tànn nee nañ ko mën ngaa bokk ba mu bokk waaye moom itam ba yëfey sotti fekku ko ci sagoom ba ñuy samp ka ñuy samp ci coobaree suñu boroom fan yu néew la ko fi yàlla jale ñom ñep yàlla na yàlla yërëm te jéggal leen te defal ñu xol buñu leen mëna a muñe waaye ki nga xam yit mom la yàlla dogal ñu tan ko lu yéme la sanurihim ayatina fi laafaaqi wa fi anfusihim hatta yatabayna lahum alxaq koo xam ne ba muy um koor ci barab la ko fekk ba koor ga demee ba sori yàlla tànn na ba noppi ne ay feppam jeex na foofee mu nekkoon waaye yàlla dogal na it fepp yi nga xam ne tànn na ko mu war koo jëfandikoo li des ci koor gi am na feneen fu mu ko war a fekk fu dul foofee dafa la ko fekk ren kon boog yàlla nañu yàlla dimbali ba ñu tàmbalee ci moom yem ci moom kepp waaye ba may jeexal tënk na lépp suñu borom dafa ñu wax ci alxuraan ne juróomi yëf ngi ni yoo xam ne dénku kenn moko teel téel mom dal euh mom dal nak so ngeen gisee mag ngi dan firé wax wahdahu la sharika lahu wahdahu mom dal moy ko xamne kenn mësu ko fekk fam nek te kenn dutu ko fekk nii na juróom yi dénk ko kenn mom dal moko xam mom dal mo xam kañ la bis penki taxaw mo ne won ci alkhon la ta'tikum illa baghtatan waye neena yit mom dal mo xam taw bii donte xam-xam wane na ni suba sa ngoon mën naa taw wala ginnaaw suba la xam-xam ba yàlla téye jox kenn mooy taw boobee lan lan lay ñoral loo xam ne nit da lekk wér ci wér dem wala nit da lekk ñu wala ñu saraxale ko tax waaye nee na it léeg lekk nit gis tase jigéen ci mbedd mi ne tarafet xool ko xam ne kii kat bokkut ak nam meloon nam ko xamee woon kon soppi ko na lam àndal xam-xam dem na ba. di tàndale naan góor lam jigéen la wala kenn la wala ñaar waaye la ca yàlla téye joxu ko kenn mooy kii day gudd fan wala day gàtt fan day am wërsëg wala da koy néewli day taxe ëllëg wala day taxeeti ak day am taxawaay wala day ak ndaama lay doon waaye ba ci topp te wënu ko jox ko kenn mooy tey nit ki mën naa am dara mu néew mu bari waaye wóoru ko ba xam dana àgg ëllëg suba dana am lam amoon tey waaw walla déet waaye ba ci gëna a moy nit ki xamut san suuf lay faato nit dana tok ci am rew ay ati ak xelam du mas a nekk ci génn waye sa bu dig ba accès génnam day yomb lool ndekete yo day dem wara faatu ci inna allah indahu ilmu saa wa al-khaytha wa yaalam ma fi al-arham wa ma tadri nafsun maada taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun xabir yàlla mi nga xam ne xam na lépp dañ kumpa ci lépp ñun ñi dañuy xam dara ba foo ko gisati ëllëg xàmmee ko waaye yow mi laata nga koy xam wala mën mi laata ma koy xam suñu borom xamoon na ko bu yàgg yàgg te dañoo ne ci kumpa xam na fépp fu muy mujj kon boog sëriñ bi nee na ñun ñëpp nañu gën a maase fab suñu tànk teg ko ci taq wallahi jëfe ndigalu suñu borom yi te bàyyi ay tereem te wéeru ci moom te bàyyi kook suñu bopp mi ngi ñaanal nag ñëpp lañu ñu jaamu yàlla ci koor gi yàlla na ko yàlla nangu ñu ngi ñaanal ñëpp rëcc rëcc yee ca jot am yéen ca xam ak yéen ca xamul yëpp yàlla nañu ko suñu borom jéggal di ñaanal ñëpp nawet bi xam ne moom lañu dëgmal yàlla nañu ci yàlla yóbbu ak suñu borom wàcceel ndox mu barkeel mu ñoral moo xam ne la cay ñore lépp ñun ñëpp ko bokk muurloo di dellu di ñaanal nag ki nga xam ne moom la. suñu borom teg kilifteefuk dëkk bii ci loxoom muy sëñ Abu Baraka bu Abdou Fatah mooy wax ñaan googu bu ko yàlla nangoo yàlla na ko nangu yàlla na ko lawal ci njaboot gi yëpp waaye it yàlla na ca baal xel bu baax a baax ak Cheikh Mahamadul Muntaxa mi nga xam ne moo fi nekk nekkal fi Cheikhul Xadim te liggéeyam bii nga xam ne moom la di liggéeyal Cheikhul Xadim di ko liggéey yàlla jaarale ko ci sëriñ Touba nit ñi war koo jariñoo mu jariñ leen tey ëllëg sëriñ bi nee na saa bu geesoo rek yàlla na ñu gis ñu topp ci moom di ñëw bokk kook moom di ñaanal ñëpp di sant ñëpp kaddu yi mu waxoon gën naa gudd gën naa jot waaye loolu la ci waxtu maye ak sama xel mu gàtt yàlla nañu ko fekk déwén te déwén dàq ren fuuf te it nee na naay baamu la koo ko waxoon suñ fallu rek barkeeloo ko ca ba mu ñëwee ne ko dama laa soxla waxtaan mu ne ko maa ngi lay déglu mu ne ko ah ci wéet laa ko soxla woon mu ne ko wéet ga de su wéetee it ñii moom maag ñoom benn lañ danaa leen ko waxaat mu ne ko damaa topp borom barak bi ba gisatuma ko ma ñëw ci Cheikh Moustapha ba gisatuma ko mu ne ko ah léegi nag mu ne ko ma ñëw fi yow fas yéene ànd ak yow lu yàgg yàgg yàgg yàgg mu ne ko bul noppi yàlla na fi nek lu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg ta bàyyil ñu suñu Abdou Fata ak mbokam yu tedd yi mu àndal suñu Abdou Lahat Cheikh sun Cheikh o Balla ak mboolem seeni dom ak seeni dongo fa nu guddu ànd ko wér alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñaanal ko mu yàgg su barke Sëriñ Fay